8h43 waxtu xalaas jot na Mamadou pare na bonjour.
bonjour Dior.
ça va.
cool ça va yaa ngi ci jàmm.
ça va le.
kon fii seen techniciens yi bu ñuy téye kii émission bu ñuy téye technique dañuy joxe ginaar.
loolu de yëguma ko woon.
en tout cas Mamadou de mas na ma fee jox cadeau xam nga lan la. dictionnaire.
mais c'est le meilleur cadeau qu'on puisse loolu faire à mooy- un journaliste. hein.
damay nafaral nafaral li ngay wax dictionnaire de la ma jox dictionnaire.
ah c'est un meilleur- c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on peut faire à un journaliste.
na nga def Dior.
maa ngi sant.
bu la ci kenn jëlee waa yaa ngi ci jàmm.
waaw waaw ça va.
waaw maa ngi nuyu auditeur rajo Futur Média sant leen gërëm ñu leen.
ngi lay fay.
dama cee bari ay waay. ah ku ci mel ni.
bëri na bëri na bëri na.
ku lim juum daal.
waaw ku lim juum.
jeex na kon nag ñoom surtout ñëpp.
ñun su ma duggee si taxi sax Dior damay damay rus ko billaay sa xol day sedd. kenn du ñoom. yàlla na Billaay.
yàlla yàlla nañu yàlla nañu wàcc wàññi litre gasoil bi xoolal ba def ko deux cent cinquante litres.
Hmm.
ah à ton âge hein?
ah ku ne ku nekk ku nekk li ngay ñaan.
ah d'accord.
Dior yes.
xalaas bi may njëkkee aha xam nga li ñuy wax ku yàlla nar a weer mhm mooy sëriñ yooyu nga xamante ne dañ lay wonaan la gisal naa la lii gisal naa la lii.
waaw waaw.
xam nga buñ ko doon yemale ci biti sax.
Hmm.
yàlla mën na leen sàng sutura waaye dañoo woo ku nekk ci rajo bi.
ci biir rajo bi rek.
waaw waa ji daal dafa woo Alioune Diassé ne ko woo ma dama lu ma la gisal Mhm, man la sëriñ de xam nga Diassé aussi intelligent qu'il est mhm.
mu dem woo ko di ko enregistré sëñ bi wax rek du sëriñ sax kii waa ji wax rek ñu déglu ko.
Dior déglu voilà ma ne. nga baal ma parce que xam naa ne euh, daal jotoo xam numéro bi. Euh, ma euh, man tamit ci wàllu ñaan moo di kalluwa laa nekkoon. ci kaw loolu la ma yow tamit yàlla woon sa numéro ak sa buntu ak sa yow tamit yow tamit sa dag bu nga war a dindi nga toog benn place nga sant alhamdulilah rabbil alamin dégg nga.
pour lan la tax may wax loolu.
su yéene nga jublu si bidib bi léegi léegi. nga uti benn paquet miskin. allo.
waaw maa ngi lay dégg.
wala su boobaa nga am am tamit joggu ñaari kilo yàpp nga fas yéene nga wuma ma xamal la noo koy def dégg nga parce que yàlla nee ne kulli seen sabakun maanaam loo gis euh, am na sababu dégg nga est-ce que yow xalaw boobu man maa la ko sant.
non non mais ci kaw loolu yow tamit la ma yàlla feeñal sa leeraay a- a- a- a- a- adduna bi ak sa buntu wase bi ay ak yow tamit fu nga yow tamit war a jaar nga tekki daal da nga bëgg a wax sama wërsëg yàlla ci yow la ko jaarale.
yàlla euh, su muy maye du la ko jox loo ko ak ak daal daal loo ko il faut daal mu am fu mu koy jaarale yow su ma génnee sarax yooyu yow da nga yaakaar ne yàlla sama wërsëg boobu su ko jaaralee foofu noonu après su ma génnee sarax yooyu damay am xaalis.
billahi azim yow tamit incha allah doo doo ko dara et puis yow tamit da da ngay daal gis leer man tamit da nga toog nga toog mat ma toog ñu gën a xamante dégg nga loo tudd man maa ngi tudd Moustapha Tall euh, maa ngi am 37 ans liggéey.
wàllu sëriñ lay liggéey daal kon yow da nga aay daal.
non fas yéene nga dindi ko su boobaa da ngay xa- da ngay xam daal oh, in- incha allah rabbi léegi yow si biir xalaw yooyu yow lan nga gis yàlla wax la ko loo xam ne dafa jëm ci man dama bëgg nga expliquer ma quoi.
oh, incha allah lu si kanam rawul bot fas yéene nga def ko nga xool man tam incha allah oh, fu ngay kii daal incha allah car yow ci biir xalawa bi yow lan la la yàlla wan man nan laa mel yàlla lim la wan nan laa mel man man nan laa mel man dama ñuul wala dama xees wala dama bleu.
ma ne waruwoo yàkkamti oh, incha allah ma wax la ko mais yow tam mais daal sadak bi sa biir gën bu la yàlla wanee loolu noonu wan na la wan man sama jëm wan la le man dama ñuul wala dama xees man dama ñuul dama xees wala dama bula billahi wala tadalay lu mu la wax ni forcé yow tamit daal da nga koy gis wala nga tamit nga da da ngay gis ba yow tamit nga gis lu lu tax ma wax la ko dégg nga d'accord mais sari yàlla bu la wanee sama wërsëg ba jox la sama numéro téléphone au moins dina la wan ne man dama ñuul wala dama xees si biir gént bi sinon yow damay xam ne yow aayoo mais yow wax naa la eh, kii mën naa la wax lu si lu daal nekk si yow yëpp mais yow tamit soo yow tamit eh, gisee ma wax lii wala xaadim li nga war a jiitale ba pare nga war a jot lu nekk si kanam wala wallaay xaw sari man jone naa ko man xam naa ne yow da nga aay mais dama bëgg xam nga man dama xees wala dama ñuul man loolu léegi boo ma ko waxee ma xam ne yow tu es fort man ne bul bul daal yàkkamti lu si kanam rawul bor soo ko dindindee ma wax la ko ah waaw xam xam nga xalaas li nga wax yow arrêté naa ko dinaa ko teg si rajo bi dégg nga ah
jaase baaxul ci kër baaxul ci mbedd jaase baaxul fenn.
non waa ji li ñuy wax naan il est mort tombé quoi billaay yow la fi mu ko.
dal fi mu dal baaxul de baaxul baaxul fi mu baaxul.
dal ba kii de weeru na wéeru na dëgg- te wër na ma ni déglu na ko moom.
ah waaw Ndax gisoo nee bi mu ne ko xalaas rek mu coupé ko coupé waaw.
oui ma man euh, fit gi ñu am bay waat di waat ci la yàlla ak yëpp mais ñii.
Dior chaque jour ma wax la ko xanaa xamoo ñaare ñi gën a ñeme yàlla Hmm.
dañoo xam yàlla non ñaare ñi gën a ñeme yàlla dañoo xam yàlla dañoo xam yàlla d'accord
déggoo ma de dégg naa la sax de.
jeex na jeex non duma ci commentaire dégg naa la comprendre naa la.
bii nag Mhm.
beneen njuuj njaaj la ah ay tappale wuy jaaykati crédit yi ñoo ngi bëgg a dee joor ah bon waaw waaw lii sax xewul Ndakaaru ah fu mu xewee dana la ko wax jox ma.
ma ngoog fii ci Louga jaaykatu crédit yi ñoo ngi bëgg a dee sonn nañ torop torop torop Sonatel daal la ñuy sàkk mu jàpp lañu te man benn waay moo fi ñëw àjjuma ci ngoon ay 6 heures 15 ne ma jaay ma crédit ma ne ko ñaata nga bëgg mu ne ma 100 francs ma ne ko 100 francs du jaay crédit mu ne ma ñaata mooy jaay ma ne ko 200 mu génnee 1000 francs jox ma ne ma jaay ma 200 ma composé jox ko ne ko defal sa numéro au lieu que mu dugal numéro am moom xam naa jaaykatu crédit la wala ku ci am xam-xam ndax yàgg na ci bi ma ko joxee rapide dafa gaaw transféré 35000 wëlbatiku te transfert maanaam boo koy def maanaam mooy kuy jaay lu bari recherche maanaam mooy kuy jënd tuuti léegi moom au lieu que mu jaarale ko ci recherche bi mu dem ca transfert ba bi mu demee transfert mu jël foofu 35000 fekk man yoroon naa crédit ma jaay bu mujj ma xool sama crédit li ci des bëriwul ma ne ah non loolu mënta nekk li mu yoroon ci crédit ak li des loolu loolu mënta nekk ma ne léegi xaar ma topp message yi topp message yi ba gis ko ma xam ne kii moo transfert 35000 yi ma woo Sonatel wax leen ko ñu ne ma léegi maanaam crédit bi dugal na ko ci portable wala maire koo jàllale ci beneen piis ma ne leen ndax mën leen ma koo toppal jëlal ma ko ci piis boobu ñu ne ma moom bu ko xasee jëlee ci piis bi mu nekkoon maanaam bu ko jaayee keneen duñ ko mën a nangu ci ndax loolu yoon mayu leen ko duñ bloqué piisu jàmboor te xamuñu da koo jëndam jët ma ne leen même moom mën naa am ñaari piisam sax bu sàccee ci bii dugal ci bii mu ne ma non loolu duñ ko duñ ko mën a kii léegi daal il faut que police ngay dem ma dem police di bind foofu plainte même waa ji ma doon bindal plainte bi dana moom moom da daan jaay crédit mais bàyyi na jaay crédit parce que 5000 boo jaay bu ne 300 francs nga ci am te da ngay perte sa xaalis rek mu ne ma léegi man bàyyi na maa jaay crédit li bu mu ne maa bàyyi na maa jaay crédit ma ne ko léegi plainte daa laa bëgg mu ne ma ndax da nga koo xam ma ne ko ah xam ma ko kay waaye Sonatel dañ ne ma yóbbul numéro bi rek ma ne ko léegi kon naa yóbbu numéro bi mu ne ma bu ma la bindalee de man 1000 francs nga may fay ma ne ko waaw man kay mën naa laa fay 1000 francs 1000 francs yi du problème mu ne ma damay bañ nga ñàkk sa xaalis rek ma ne ko ah garaaw naa ci wasula àq rek ma daal di koy jox 1000 francs mu daan may bindal plainte léegi bi ñu jógee ci loolu ma woo ko waa ji ci boppam ki jël crédit bi mu ne ma léegi sama mag moo moo portable ma ne ko du sa benn mag yow yaa moom crédit bi yaa ko sàcc xam nga ko mu ne ma léegi astaxfirullah ma ne ko astaxfirullah ci naan sàcc crédit jàmboor ba pare naan astaxfirullah mu ne ma léegi yow fan nga nekk ci Louga danaa fi jaar ma ne ko yow fan nga nekk ma ñëw fi mu ne ma fi ma nekk man mënu ma la koo wax bu ma wàccee rek danaa fi ñëw te man leer na ma ne day wax rek waaye du fi ñëw léegi tey ci suba bi ma xëyee ma woote waat Sonatel wax leen ko ma ne leen tax crédit bi man mën naa cee jot wala déet ñu ne ma déet crédit bi moom mënoo cee jot ñun nag li ñu ñaan mooy Sonatel jàppale ñu parce que ñun jaaykati crédit yi sonn nañ trop trop trop trop mënuñu ci am dara am na benn waay boo xam ne jëlal nañ ko fee vingt et un mille am na beneen waay boo xam ne moom it fii suñu wet quarante cinq mille lañ ko jëlal dégg naa gars yi gars yi gars yi di ko wax moom jaaykati crédit yëpp sonn nañ trop waaye en tout cas daal li may ñaan moom mooy Sonatel ñu jàppale ñu ba képp koo xam ne ci sàccati na suñ crédit ñu mën cee jot
jommeeti nga xanaa.
man la ma jaaxal mooy niñ ciy gaawee noonu sax.
ah yow it day day déggu lim la wax.
nu ñuy def ba c'est xam que ñoom nag duñu duñu war di di di di joxe téléphone pour ñu yi. ñoo war dugal a mais voilà.
xam nga luy erreur bi.
Mm.
léeg-léeg da ngay gis ku la ne jox ma numéro bi nga tàppe mu wax la nga ne ko temps 77 temps temps temps wala 76 wala 70 temps.
Mhm.
nga pare mu ne wa nga envoyé nga envoyé mu téye téléphone bi ne sëñ bi ñëwul de nga ne ko ah xanaa jox ma numéro mu ne déedéet yow yaa juum. joxaat la beneen numéro seen crédit ca loolu lay jeex ndeysaan xam nga loolu c'est compliqué.
compliqué na kay ni mu Ñun- ko waxee rek.
ay 35 mille ak ay ay ay 40 mille ak yu kenn ay 21 mille ak yu kenn xamul.
waa gaa ni mu ko waxee rek.
Dëgg kii- opérateur yi leen war a jàppale.
nee na ma cité des enseignants.
Mhm.
dafa am ñoo xam dañu fa yar ay xaj kenn mënut a nelaw.
ay xaj.
waaw chien Ah, chien méchant.
te xaj ji di su ko yar ci ci ci dëkkuwaay nag. xam naa ne bu ci rëcc moom dana dana doy waar trop.
waaw mais nga jël sa xaj tëj.
da koy yar élevage élevage comme ni ñuy yaree ay xar ah nan lañ koy yaree foofa cité des enseignants.
ay yow mi Massa ngi nii de cité des enseignants foofu fan la.
ah mooy fi Wakaam.
enseignants yi nekk Wakaam ah Wakaam cité des enseignants est-ce que nekkul boori Géejawaay yaakaar naa secteur boobu la de Wakaam am na cité des enseignants.
ah.
Wakaam am na cité des non enseignants.
su ma juumul fi Omar Sène daan defee festival banlieue rythme foofu mooy cité enseignant Mm.
mos naa faa dem man maa reportage.
ngi nuyu sama yaay ba nekk Wakaam euh, s- sama yaay euh, madame Maka Suba Hmm.
waaw yaay ju baax bu woon sa yaay dama wax ci waaye comme sa yaay la ma mën ko nuyu ci heure xalaas.
bu baax sax yaa fi wax enseignant ba ma xalaat enseignant cité enseignant fële nu mu tudd Wakaam.
Wakaam foofu cité sama avion la xel dem ci moom foofu cité Avion- enseignant avion am na cité fa, enseignant géej assemblée géejawaay am golf na la fa.
nekk dégg nga cité enseignant géejawaay golf la nekk waaw dégg nga.
d'accord merci oui ma wax ma gis nga de man du ma sonn mukk heure bu ma naree gag rek auditeurs yi gàggan ci ma.
Mm.
kenn du ñoom. fii Aziz Aziz moo fa jaar oui ma aywa ba ma la wuyoo du léegi di non man bi may bëgg a indi man daf maa yéem ah bon daf maa jaaxal uhum.
ci yàlla.
waaw waxal boog ñu xam ah Dior li kat mënu ma ko wax lu tax mënoo koo wax dafa yéeme.
ma teg boog ñu déglu Wax teg- ginnaaw bëggoo wax ay ca ay ci ñu dem dañ maa may am mag mag am na war naa am 60 ans wala 65 ans léegi buñ ma koy may nee naa leen man bëgguma ko buñ ma ko maytu lu yàgg moom maa ko séyal léegi dem nañ ba xam ne jaaxaan jeex na sama samay mbokk yëpp seetaan nañu sama maam ne ko léegi boo ko fay ko alal bu ko amut dina la ko fay léegi mu daal ne ma danga may fay juróom ñeent fukki junne juróom benn balaa ma lay fase léegi nag nee naa ko man joxu mosuma maa joxu dërëm boo xamante ni war naa la ko mën a fay musuma ba ma takkee ba tey am na ñetti at musuma jëndal daal musuma jëndal yére bu ma sol léegi nag sama mbokk yëpp seetaan nañu amuma kenn koo xamante ni moom ko mën a fayal joxul woon kenn xaalis léegi sama maam man moo ne ko boo ko koñee laaj ko xaalis dina la sëyal ba mu lu mu la fayee dina la sëyal musuma jox dara indilu ma dara Sadio la dëkk benn yoon laa ma sa dem tabaski mu jàpp ma fa dóor ma ba may bëgg a dee ba ma ñëwee nag laa laa siis nag ne leen dootuma dootuma fa dem dootuma tabaski ji te ma fay dem tamit ñoo wax wax ba ma dem fa mu jàpp ma ba may dóor dafa toxo toxo bay bëgg a dee naan ba màndi li mu doon def yëpp sax dama ko doon nëbbal ndax li sama yaay noppi rek tax man ma noppi man tamit di ko nëbbal li ma doon def yëpp li mu doon toxaga naan papaam xamal na ne day tox sax waaye da ko doon nëbb waaye man ba tey waxuma ko waaye bis boobu may dóor daa toxo toxo tox ba màndi naan ba màndi ndik di ma dóor naan ma caga ngàkk lu ne ma di ma ko wax léegi nag man nee naa leen du ma sëy te amul lu ma ko fayee te nee na ma fii ak fayoo ma du ma la wàcc. sama mbokk la ndax rak ma rak magam moo jur sama jabari mag.
Dior.
lii lan la mariage forcé yé moom kay kenn xamul du mariage lépp la kay nii kay boo ma fayul li ma la joxoon du ma la du ma du ma la du ma la du ma duñ divorcé kon loolu am na ci sëy yi ma ne may divorcé par force ah man may divorcé par force déet yow da ngaa takk gom bay tekki li ngay def di um sa bopp rek
waaye ku la ne néew ma ci yoon Yow, ay jiw- Mohamed yow ci lamb nga jëm sa làmmiñ sa ta bouche ah ni ma yàq Sénégal boo gisee dëgg wax ko ñu ne da ngaa réy lammiñ déet quoi déet déet déet bu ma catu yow bu mii ma catu ngir yàlla man doo pitié.
mos a gis kenn ku ma ne joor laa bëgg ah j'ai jamais vu malheureusement yow yow yow fii nii keroog rek nga toog naan ma kii sa soppe la nee na dalaa bëgg déet gis sa soppe la ak dalaa bëgg bokkul de joor ah yeewi ma ma uy dem ma soppe geeg mbëggeel Waa bi ci léegi- me- même yoon la waa de léegi- même chemin la xalaas jeex na damay dem damoo ay joor 4 heures ba léegi maa ngi carboté ba ma ma dem yo- yow danga maa gën a jëkkateer yow waa jërëjëf uy ma bi may wër bii la ba ban la bii nii lu mu ca way
defe naa bii la Thione Seck man way Thione Seck yëpp jaaga rek laa ci xam
xam nañ lu tax nga xam cee jaaga Mohamed Hmm?
ñu yendoog jàmm Jërëjëf.
ba sa ba incha allah